get gert gerten mooy am dara moomeel give gave given moom lañuy wax joxe go went gone mooy dem dem fenn grow grew grown moom la ñuy wax màgg màggaay hang hung hung mooy wékk wékk dara fenn hear heard heard mooy dégg have had xadd am dara ba tey tamit ci moomeel la hide hid hidden mooy nëbb hit hit hit moom lañuy wax dóor ba tey tamit xeetu dóor la hold, held, held moom la wax téye wala boog jàpp dara hurt hurt hurt moom lañuy wax gaañ keep kept mooy denc dara walla boog téye dara ba tey no new known mooy xam-xam dara lead led led olof di ko wax jiite leave left left dañ koy wax bàyyi wala bàyyee benn place laay lay lane moom la ñuy wax tëdd lose lost lost moom la wax ñàkk make made made dañ koy wax def walla ba tey tamit defar dara meet met met olof lim koy wax mooy daje wala boog gisee mistake mistook mistaken mooy juum pay paid mooy fay put put put dañ koy wax tek read read read mooy ngay liir di jàng dara di ko liir ride ride dañ koy wax dawal waaye dawal ay fas ak mbaam maanaam yi nga xam ne dañ koy war rise rise reason moom lañuy wax yëkkatiku run ran run olof di ko wax daw say said said wax lañ ci jublu see so seen olof di ko wax gis comme gis kenn wala gis dara send sent sent mooy yónnee comme yónnee xaalis wala yónnee message yu demee noonu